salaamaaleykum chers internautes de la Médina TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek mbokk yi ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolee nag boo leen ko déggee rek xam ne a tiis moo wàcc ci musique sénégalaise rawatina ki nga xamante ne moom mooy Alioune Mbaye Nder ginnaaw bi ñu jotee xibaar buy fësal nekkoon ñàkk na rakam bu jigéen loolee nag mi ngi am ni ki tey ginnaaw rek bi nga xamante ni tam teg nañ ci ay waxtu ñu daal di beneen xibaar rek buy fësal ne ci même jour ñàkk na itam euh, doomam bu jigéen loole nag di ñaari biir wala ñaari tiis yoo xamante ne dala doon na ko ci benn bis muy lu méttee méttee métti loo xamante ne kon euh, dal na ci kawam ginnaaw itam biñ nemmee ko rek weer yi la weesu ñàkkoon na ki nga xamante ne moom mooy euh, soxnaam loolu itam fësoon loolu euh, kon mu nekk loo xamante ne rek dal na ci kawam euh, ñi koy masaw bu baax a baax a baax équipe Medina TV itam di ko jaale doomam ak rakkam jooju nga xamante ne bàyyeekoo nañ fi waaye di ko ñaanal xolu muñ di ñaan tamit njéggal suñu borom yeesal ko ci ñi nga xamante ne ñoo fi bàyyeekoo waaye tàbbaleen jannatul firndaw si jaa ngeen jëf